asalaamaaleykum chers téléspectateurs nuyu nañ leen ah, di am contentement di delluwaat ak yéen ba tey ci programme bi nga xamante ne nee naa la moom la waa Afrimo organisé tey nag ñu nekk fii nga xamante ne moom mooy Arena nee naa leen nag kii taxaw sama côté kenn du ko fii ci Sénégal ndaxte nag ñu bëri nuyu. maa ngi sama sister ci loolu rek nga am jàmm maa ngi si baax mais ni nga def baax na de. waaw lii de nga dem. ci def nii daal Euh, léegi yow tey ban yëg nga am ci li nga xamante ni Afrima organisé na ko fii ci Sénégal lan la mën a yokk ci musique Sénégal. mbégte ah mbégte et cela prouve que fu mu toll nii maanaam suñu musique mu ngi gën a avancé. Mm-hmm. parce que tey jii lii daawoon na am avant. mais musul am Sénégal donc c'est une première muy am ci Sénégal et c'est juste une fierté et voilà di féliciter ñi nga xamante ne ñoo ko organisé di en di di sama gars yi nga xamante ne maanaam acteur artistes yi ñëw ñoom Ngaaka Blindé gars yi voilà di leen wax ne maanaam ñu ci lancé bi quoi mm-hmm. donc nii la rek suñu musique sénégalaise ñun ñoo ko mën a jaayal suñu bopp tax papa yu def na def ko def na flambeau ba pare ñoom waaye seek ñoo si def gars te musique baa avancé quoi donc voilà métier ak mbalax bi nga xamante ne fii Sénégal ku ñu xam xamuñu ci mbalax léegi ni ñu ñëwee ñi euh, bëgg ñu imposer li nga xamante ne moom mooy euh, musique internationale ndax tey jii ñoom euh, ñëw nañ def mais ndax li ñuy def fii nii après dina fi des ba ñun musicien sénégalais di ko appliquer. waa xam nga musique moom dafa yaatu. Mm-hmm. et que mbalax te jamono jii sax. Nous avons yenn à internationaliser, nous ñu koy commencé internationaliser changer parce que c'est juste des mélodies et puis voilà il y' a des am qui ñun ko tout le temps daf ci war a mo c'est touche personnelle et que nous, avons ñu koy commencé à gars ñu koy commencé à <laughs> pousser. mais mais que le problème en est que euh, dañ né Sénégal instrument yi ñu utiliser pour musique de bëri par rapport à l'exemple exemple nigériens y dañuy am instrument def ko mu effectivement maanaam artistes yi ñu ngi travaillé ci lolu parce que xam nañ pour arriver à un certain niveau dans le monde international il faut que nga def yenn sacrifice yi am yenn liguey bo am da ko bu ay bo wara def pour que monde bi bëgg la et que ci lolu ñoo ñoom ñoo ci ils sont dans la bonne lancée. donc voilà di leen encourager rek. c'est juste ça. ñu ñëw tamit ci culture bi parce que tamit gis nañ ni tamit tay Nigériens ñom bu ñuy tourner sen ay clip bi dañuy wone sen culture pourquoi pas ici au Sénégal. sax amna ñu koy def sax nak amna na ñu wane euh, seen culture et tout waaw minorité mais xam nga rek comme ni ma la wax. ku nekk ak li nga sentir ak li nga feel mhm. mais man bëgg naa ne comme ni nga wax ñuy wane suñuy culture di wane des trucs yoo xam ci symbolique c'est des choses symboliques mhm. am na ay artistes yoo xam ne ñu ngi koy def nag waxuñu ñëpp quoi mais am na artistes yoo xam te ne ñu ngi ci loolu mhm. et que ñu invité ñëpp ñu mën a jaay ñun ñoo jaay mën a jaay suñu réew keneen mënu ko jaay parce que ñi nga xam ne ci cinéma bi donc ñun ñëpp ñoo yem surtout ci solin bi tamit effectivement ak li am Sénégal parce que <laughs> costume africain bu ñuy sol jamono ji c'est quelque chose boo xam te ne man daf ma neex parce que ñun la quoi c'est nous tu vois c'est typiquement africain te loolu maanaam tey jii ñu ñu ngi ciy ñu bu baax a baax a baax te fii ci kanam mooy gën a neex. sa dernier mot nga tàggatoo euh, téléspectateurs yi TV yaa VIP Dakar. merci beaucoup sama gars yi di leen di leen di leen ziar di leen bëggee bu baax a baax xam nga di leen wax. di leen jox di daje beneen euh, rencontre. incha allah di daje euh, plateau parce que man moom dañuy fas yéene toog gën yaatal affaire yi <laughs> loolu war na mun nekk.

bah écoute fier ah kontaan kontaan kontaan franchement parce que lii nii euh, da nga ciy da ngay juste da nga ciy fier parce que lii tey jii si télé yi dañ ko doon gis télé française yi yeneen affaire yooyu États-Unis tey jii boo amee fii tey si Dakar dañ mbegte rek lañ ci mën a am quoi franchement. te mën nañu amal njëriñ quoi ouverture bu bare bari bare bari bare franchement. ci njëriñ yooyu noonu lan nga gis ni que mën na ko apporter la musique euh, Sénégal fii nii. genre mën na ko apporter lu bëri tey jii ci wàllum ci wàllum visibilité ci wàllum visibilité parce que tey jii ñëpp xam nañu tey jii musique Sénégal aar kese la. ci waa am pa tey jii ñu may tamit visibilité tey jii na man tey soo gisee artistes yi ñoom ngaa ko blende tu vois des artistes sénégalais tu vois ñu approche chance di rencontrer. comme eh, <laughs> donc voilà ça fait plaisir en fait ça fait vraiment plaisir et que voilà on est vraiment content d'être là quoi franchement. Euh, musique Sénégal na euh, ñu changer selon euh, vous. Bah, pour moi, musique sénégalaise, ça marche bien. Hein, pour mais moi, avec bi, parce que parce que t'as presque les euh, mhm. instruments yi ñuy utiliser dafa bari par rapport aux autres. Mhm. Deux ou bien trois instruments les euh, def. xam nga affaire yi cartonné par rapport. fii mbalax tu sais mbalax c'est qui qui bouge là en fait. mais jusque jusque comme suñu papa Souleymane Faye li mu waxoon rek genre mbalax c'est trop mais j'ai un pied mon manque pied bi tu vois et c'est très très important hein mais mbalax vraiment musique bu ko gën riche pour man gisuma Afrique franchement jusque ñun ñoo gëm rek imposer suñu bop parce que tay ji nigériens dañu ñëw imposer ñeneen ñeneen tew imposer musique mi ngi dem taa yu ko gënné mu dem viral tu vois un peu donc pourquoi pas ñun tamit ñun ñu ñu faire la même chose pour man musique Sénégal franchement pour man nice on a des bons artistes tu vois jusque rek dañu gëna xol structure bi rek gëna am organisation xam nga et puis c'est ça en fait man loolu la gëm. ñeeg yi nga am tey ci Afrima bi ñu def fi ci Sénégal c'est l'Afrique en réunion déjà regroupé ay artistes ay humoristes pourquoi pas chanteurs acteurs donc on est tous là réunis donc euh, c'est initiative la nous vraiment ça fait partie des avancements de la culture hein, surtout africaine donc pourquoi pas nous gën ñu donc c'est important quoi. Euh, nga gis ni que tey jii ndax dina am euh, lu mu andi leneen loo xamante ne bokk woon ci senegal ci wàllu musique bi waaw musicalement surtout parce que ñun mën naa ne ci domaine boobu la yëngu. Mm-hmm. donc musicalement bu ñu sañoon affaire yi gën a am fu mu weesu pourquoi pas parce que tamit mën naa ne Afrique euh, Afrima Awards. avant muy ñëw Sénégal mën naa ne daaw ñu am sax ay nomination artistique yu bari yo xamni day ñëw fi au Sénégal mhm. donc ñun dañuy ñaan à ce que bu fekkee dañuy benen yoon mu nekk ci benen ville bo xamni du Dakar mhm. ñuy nominer ay artistes yo xamni c'est des artistes sénégalais yo xamni ils pourront se déplacer dem ci yeneen régions yi waaw mhm. c'est très important donc lool day lool day participer ci évolution musique euh, sénégalaise euh, li lim wax dama ko ci fekk ci parce que tamit yoon na tamit ñu laal ci sous région yi parce que fofu nee naa ay jeunes yu am talent ñoo ngi fa amna lu extraordinaire yo xamantene ne war nañ ko fa euh, gis na tay ji ñu gis ne ñi nga xamante ne ñoom nigériens yi mm. ñoom bu ñuy def li nga xam moy seen ay clip mm. dañuy wane seen ay culture pourquoi pas ici au Sénégal ñuy nebutu ndax pourtant gars yi ñu ngi koy def gars yi ñu koy def mais en plus ben en fait ben instant gars yi dañoo gën focus sur luxe bi et tout. merci waaw dañoo gën focus sur luxe bi. Mm-hmm. mais gars yi ñu koy def xam nga ñu ngi gis ay ay gars yo xamni ñu ngi koy commencer di def di wone li nga xam moy mooy ci culture sous région bi. Mm-hmm et gëm affaire bi dina parce que africains surtout notamment au Sénégal nous comprendre qu'est-ce qui fait la qu'est-ce qui fait la différence qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui fait l'originalité xam nga loolu ñu ciy donc actuellement je suis avec un de mes frères on a dit Afrima donc c'est l'Afrique qui gagne il y a toute l'Afrique qui est réunie ici donc je ngi ak sama sama benn frère bonjour frère. comment merci alhamdoulillah ça va bien. bienvenue merci merci beaucoup. Quelles bon. sont vos impressions euh, par rapport à... Euh, machallah, c'était bien, c'est bien préparé, c'est bien. Euh, c'est votre première fois à Dakar euh, Ben oui, c'est mon première fois. C'est mon premier voyage en fait pour l'Afrique de l'Ouest. Je, je venais de Tunisie. Donc euh, je suis au Sénégal pour travailler à Dakar actuellement. Bon. Et comment, tu te trouves à Dakar Parce que Dakar c'est le, capitaine, oui, bon, c'est la ville c'est le pays de la, de de de l'hospitalité. Et tu te plais, tu te plais bien ici Oui. Bon, là, Dakar, tu sais, c'est que toujours les capitaines sont comme ça. Toujours là, les gens ils sont juste pour travailler. Euh, une vie compliquée, trop d'embouteillages, trop de mouvements. donc là, on ne peut pas le prendre euh, Dakar comme référence. ما دينا اه، اه، ولا في بوباخ كاي ما في دبي جرم ب... ما انت دو الادا الادا واو الادا كوم لو جوني دو ماجيسيان دو ديسان انيمي واو يا ليك تيبوجين واو ما ليك تيبوجين اك لبنا كاي ولا يخ بن بن مو بن بن بو ولا اه يخ le ah, c'est le plus how are you? I'm I'm doing well. How are you doing? I'm I'm I'm good. Yeah. So we are we. Afrima, right? Yeah. Uh, my name is DJ Sly Yeah, yeah. I'm from Ghana. You are from Ghana. Yeah. Uh, Ghana. Yeah. you are nominated. You are nominated tonight. Yeah, I, I, have a nomination for best DJ in Africa. Mm -hmm. Yeah, so I mean. Uh, okay. And how is your experience? How do you find the event here? And um, what is your oh. Dakar experience? Is it your first well, time in Dakar? It's, it's my first time in Dakar, and I think I like the weather. Mm. You know, it's nice, and uh, I like everything here. I mean, I like your buildings and the environment and your sea. Will you want to come back in Dakar again? Yeah, I, I would like to come back to Dakar. It's a beautiful place. I'm looking forward to coming back, and I had a good experience. Um, I played in some clubs here in Dakar, and and it was good. Like yeah, uh, the people. Yeah. Like my music when I was DJing. So. I, it's uh, Chebujen, Chebujen. Yes. Yeah. Did you try the Senegalese jollof? Here, the Senegalese jollof, you call it Chebujen. Did you try the Senegalese jollof? I, didn't because I try hard to try Senegal jollof today, but today happened to be Sunday, so I was not able to get jollof. But I had a check here, yeah. and it was good. I, I like, yeah. Yeah, it was good. I checked. I had a check in. it was good. Yeah, so. but I, will be looking forward to try Senegal jollof one day because I've been hearing it's one of the best in Africa. So. ban yëg-yëg nga am Afrima bi nga xamante ne ñoo koy doog a organiser fii ci euh, l'Afrique de l'Ouest ñu andi ko Sénégal mu njëkkee fii ñu dalal ko fii ci Sénégal ban yëg-yëg nga ci am. bon kontaan ci rek puisque c'est la première fois muy am pays francophone rawatina Sénégal lañ ci lañ ci tàmm woon xam nga mu nekk benn fierté. bu bu maga maga mag contentement bu rëy rëy rëy ci li nga xamanteni ni def nañ ko wa Afrima def na ko ko fi Sénégal tout à fait Dakar pour que jeunes Afrique bi yëpp mën a regrouper wu fi et tout tu vois c'est quelque chose de de cool quoi de bien li nga xamanteni def nañ ko. Euh, tay Afrima bi lan la mën apporter le musique du Sénégal. Bah, mën ko apporter lu bëree bëri. parce que déjà ñun xam nañ suñu niveau style musical fi mu tollu xam nga mën ko relever de telle sorte que gars yi bu ñu royee ci ñi nga xamanteni ni ñooy voisins ay Nigeria Tchad euh, ak euh, Côte d'Ivoire ak euh, ñom sen tu vois dañu am ben opportunité bu bëree bëri bi nga xamanteni carrément ce sont les tonalités qui parlent en même temps les paroles aussi qui parlent avec l'image aussi qui parle L'olé pour gars yi war nañ ko xol xolat ko défar ko tu vois de telle sorte que ñu mëna a avancer suñu musique parce que dëgg la ni carrément état de cee wara ni par part de responsabilité am lu bëree bëree bëri parce que état actuellement fuñ koy xaaree ñogu fa batay artiste yi ban subventionné jappelé leen parce que ku wax musique wax culture Sénégal gis nañ ni carrément néw na ño xamanténi ne dañuy dugal culture bi ci image ci qualité ci euh, chanson ci mélodie tu vois ci beat aussi ci rythme aussi tu vois lool lepp ci ci la dañ ko wara a joobaat ko de telle sorte que pap Sidi Fall sax xam nga mom tamit war na cee def ay djégo suma way la et tout tu vois mais bon par contre war na ci def ay djégo ak euh, ñom sen ñu bëree bëree bëri Youssou Ndour ci jëm boppam mais bon par contre lool d'al, nek na lu manqué musique Sénégal nek na lu fi manqué lu fi néew mais bon par contre gars yi war nañ cee joobaat toggaat ko bu mu ñor génnee ko parce que ku wax musique wax culture parce que culture mom lu ko njëkk jaay moy musique té musique bobu nonu carrément tant que defaruñu ko mënuñu avancer ci ci plateforme internationale. mais tay ndax di nga gis ni que événement bu jallé ndax changement ndax na am ci euh, envers euh, les musiciens. Moi, j'espère bien J'espère bien j'espère bien ci label j'espère bien ci euh, gouvernement bi aussi tu vois ak musiciens yi aussi ñu indi ci ben ben ben tonalité bu bu bu jéggi dayoo puisque gars yi légui romb nañ fo xamanteni carrément malaxmani maa des fois dinañ ma sànni xeer et tout tu vois wala dem len di sandi xeer du moins mais bon par contre affaire yi le rythme nekkatul ambiance. du ambiance quoi affaire bi tonalité la ci vois. gars yi def ah, Sénégal dañoo bëgg ambiance dañoo bëgg ambiance tas dëgg sama doom nday Pagaye Mbaye maa ngi koy siyaar bu baax a baax. affaire bu ko mën nii nga koy ah, defee voilà ah, sama waay mais bon par contre xam nga loolu moo fi moo fi war a jeex déjà ci vois question de musique question de tonalité la deux ñaari style musical da nga koy gis ci nigérians afrobeat ñee ñëw. sud euh, africain yi ñëw Amapiano xam nga ñeneen ñëw ci ay euh, congolais du genre comme ça ñoom ñëpp ñu ñëw xam nga indi seen style seen propre style mais Sénégal mbalax bi mënoo ko jaay ci à l'international parce que dafa bëri bruit xam nga dafa bëri bruit mais ñaari ñaari ñaari instrument rek mën nga ci liggéey mais xoolal xool rek ñoom la ñuy def ci ñaari instrument dañ ci liggéey te dañ koy déglu ils ont des milliers de vues ndax lan c'est beau à entendre beau à écouter beau à voir aussi mais loolu kese la loolu moo ñu taaral jusqu'à présent. Eh, merci beaucoup big up naa leen yéen ñëpp. ay mu ngi noonu nee leen moom mooy PAM si mu wax lu am solo nee naa nag musiciens yi ak ñi nga xamante ne ñu ñooy managers yi ñu daal ci bàyyi xel ah. ayca ah, ba tey rek sama caméraman nee naa da nga may topp dañuy jóge nag tapis rouge nag mën a dugg ci biir. xool ambiance bi.